toog rond gis ngeen dayu bay day rond pasti day rond mais boo ko sexee ngay xam ban mooy pasti ak ban mooy dayu bay Sonko du Khalifa Sall du Karim Wade Khalifa Sall dayu bay la Karim Wade dayu bay la Sonko pasti la boo koy sax ngay xam ñoom ñu poron tuuti saxal xool bon ci macc ak ba nga yàpp nu mu lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm buñ la saxalee pasti di nga taxati ko buñ la saxalee dayu bëy ngay def te kenn wonu la ko Pastef ak day yu bëy bokkuñu Sonko Pastef la Khalifa saxla day yu bëy la Karim Wade yu bëy la mënuñu gañee douze mars donc Macky soxla wu ñooñu intéressé wu leen Angleterre ak pomme de terre la lan leen Sonko ba ngeen ko bëggee laal gis ngeen lu mu musul am xam ngeen Sonko du moom di ngeen ko jéem a laal insurrection guérilla urbaine gars yi génn ci mbedd mi émeute yi libéré Sonko libéré dëkk bi di tàkk vum vum affaire bi mel ni tulleeg ma la réew mi di boy voiture brûlé siège média yi saccagé magasin pillé maison mise en feu rue barricadée parsemée de pierres station service yi ñu boyal ko tout musul am <laughs> kon xam ngeen ki ngeen jàpp du duulu bay paste la sénégalais dañ koy dundee paste boobu lañ am di ci màcc saa yu ñu xiifee moom la ñuy màcc mu dalal seen xel yi feesal seen biir yi ngeen ne da ngeen jàpp paste bi dayu bay ba leen ko jàppee kenn du xeex moo tax bi ngeen jàppee xalifa day bay kenn xeexut ngeen jàpp karim duulu bay kenn xeexut mais pasti bi bi ñuy dundee boo leen ko yóbbee boo leen ko saxee di ngeen ko yàbbi mbéj moo ko yàbbee moo leen ko yàbbi loo moo tax ba ngeen ko jéemee sax ku te ne leen cher seen oto yëpp lañ taal même média yi média yi àndoon ak yéen dañoo dem di ko taal yi magasin yi ñu piller ko taal ko station service yi ñu taal ko lépp lañ rajaxe dara desul Sénégal six jours libéré vum vum libéré vum vum douze morts du jamais vu kon xam ngeen ki ngeen war a amal affaire loolu dalal na leen di dam leen jàppaat ko <laughs> dem leen bii moom waxuma la voiture brûlée de waxuma la siège média saccagé de waxuma la magasin pillé de waxuma la maison mise en feu de waxuma la ay rues barricadées de parsemé de pierre de waxuma lay station service euh, mise en feu de déedéet bii yéen la ñuy <laughs> bii loolu lañ ci dolli mot de passe bii di ñëw moom mooy taal leen ministère yi lañuy taal ministre yi taal député yi taal maire yi yu ànd ak waa APR ak Benno Bokk Yaakaar boobu lañ ci dolli saccagé euh, palais récupéré ko euh, am na piscine bu fa nekk ñu sangu ci fu ne ni gaa yëpp ngi dajale seen maillot de bain yi ak seen silibu seen silib yi incha allah ñëpp lu musul am lii lañ ci dolli nee nañ bii moom dinañ buri la oto yi dinañ siège siège yu média yi nga xam ne corrompu yi dinañ leen euh, saccagé dinañ saccagé euh, magasin yi pillé ko jël seen kër yi brûlé ko brûlé mbedd mi station yi ñu taal leen mais dinañ leen yéen ci seen biir dinañ leen taal seen magistrat yi dinañ leen taal taal seen njaboot yi taal seen kër yi loolu lañ ci dolli ngeen yëg ko ak tamit songu palais dugg ci piscine bi sangu ba kii Macky daw ñu sangu ba rafet génn loolu lañ ci dolli kon loolu na ngeen ko xam beñaat moo tax fu mu ne nii booy yëpp a ngi préparé seen seen caleçon yi gel yi di préparé ñoom seen deux pièces yi ñu def soirée bombaas guddi googu dina am soirée bombaas incha allah bu saf sàpp ak euh, euh, DJ bu bu boo xam ni euh, surprise la incha allah waaw soirée bombaas préparer leen caleçon yi euh, string yi deux pièces yi euh, et cetera et cetera maillot de bain yi maillot de bain yi ak euh, caleçon yi ak slip yi soirée bombaas incha allah bés bu ñu waree jàpp Sonko foofu la ñuy foofu mooy lieu rencontre bi piscine party incha allah kon bientôt piscine party bi ñu jël fa ay snap jël fa ay photo tu vois et cetera et incha allah. dem leen jàpp ko bu leen tiit na yóbbu ay avion na yóbbu ay dem leen jàpp ko dem leen jàpp ko waaw bombaas biir pale laa la wax bu saf sàpp saf sàpp dem libérer prisonnier politique yi dem dajji euh, kaso bi libérer prisonnier politique yépp tout kon nay leer ngeen di dof ñu ngeen fii fekk dem leen jàpp dem leen jàpp ko da ngeen di dox loolu bu leen am lu ngeen ciy ragal ba ñun dañoo namm piscine party dañoo namm soirée bombaas biir palais nag biir palais caatan <laughs> boo booy neex ay sama booy instant yi grand ñu ngi koy préparé de am na booy yoo xam ne ci fëgg jaay ba lañ dem fëgg fa wut fa ay ay mayor de bain yu mool ñi wut fa ay silib yu baax ñoom bagga nit dof keroog wan na ma euh, caleçon bu mu jënd fële ca ca ca kolobaan <laughs> ne ma grand gis nga bii mi ngi am ay mi ngi am ay fleur ma ne ko boo yaa bon <laughs> rafet mu ne ma euh, bagga nit dof ne ma bii incha allah soirée bombaas ba ca palais piscine paadi ba grand bii laay naan fur feey <laughs> ma ne ko boo yow jëlal ma photo man bul ma fàtte yónnee may photo da ngeen di dof dof yoo leen gën a si buru fii loo leen bax ñu ngeer ko yéen yéen yéen amu leen fit sax amu leen fit sax di cocktail molotov au cocktail voilà te dafa tombeek été bi kon ngeen préparé ko ñun on amuñu dara lu ñuy ragal amuñu dara lu ñuy tiit ci ay ñoom ñu jóg naan dañuy dem jëli si nañ dem jëli ko ils verront que du feu c'est tout amuñu luñ ci ragal ñun ñoo leen gën a pareew ñun ñoo gën a pare voilà mu tombé ci été bi ñoo leen gën a pare wóor na yàlla yéen parewu leen sax ay ragal ngeen yéen waa waa benn bokk yaa ay rag doo leen dara doo leen tuus waaw dafa barbe kii xanaa waaw gars yi pare leen ko daal pare leen ko Ousmane Sonko laal dee jege dee jub dee ñetti yoon la laal dee jege dee jub dee voilà mu ngi noonu léegi nag buñ tal dara Macky Sall na def lu ko neex na dem jël deux cent cinquante cartes police policier dem jox ko ay nervi boo leen seetee manifestation est-ce que xam ngeen ne ay policiers dóoruñu leen ay gendarme dóoruñu leen seetlu leen bu baax vidéo yi ngeen yor ñiy dóor booy kenn solu ci yëre gendarme ay ay ay civil lañ ay civil booy yi même gendarme yi duñ dóor booy ñiy yor gendarme ñiy dóor booy bu ñu jàppee booy di leen dóor manifestant yi di leen dóor xool leen bu baax ay civil lañ ay gilet benn gilet la ñuy sol wala nag ñooy dóor booy yi gendarme yi taxaw assisté leen ñu dóor booy yi ba ñuy bëgg a dee. moo tax kuñ ci jot dinañ la rey kuñ ci xam sa kër dinañ la rey dem leen rek di def le sale boulot vous verrez que du feu. kon donc bu leen fàtte ni émeute yi fi amoon. yu fi gën a tàng six jours Ousmane Sonko yi la fan la mujj lan lañ defoon tentative de liquidation au fins d'élimination moo leen taxoon a jóg dañ xoolal patate chaude la dañ ko fa bàyyi ne trouble à l'ordre public ñibbil <laughs> ëpp dafa baax ci laax bu tàng maa la ko wax bu ñuy ñëw di jël Ousmane Sonko naan dañuy ñu ñëw wuy si tentative de liquidation lañ amoon aux fin d'élimination dóor ko ci kaso bi aux fins d'élimination d'un adversaire politique population ba jóg rebelle wu fippu ndem farata la gars yi xam ne lii patate chaude la ñu yàbbi ko nee naa nee naa leen pasti bi daa saf de du ko nekk ko koy log de pasti bi Ousmane Sonko pasti la pasti askan askan wi la pasti askan wi la ci la ñuy dundee bu ñu sojee pasti bi la ñuy màcc bu ñu bëggee feebar pasti bi lañuy ñuy macc ku ko macc wér ab pasti la du day bëy ku ko macc wér lu la dal ku ko macc wér bu sa bopp di metti boo ko maccee wér bu di réew boo ko maccee wér bu sa dënn diisee boo ko maccee wér bu say nopp di xasan boo ko maccee wér bu say butit di metti boo ko maccee wér laal wér la naan wér jege wér sex wér déglu wér xool wér mooy pasti moo tax nguur gi ba ñu bëggee sex pasti ba insurrection moo fa mujjee am réew ma yëpp génn na ko doole sañu pasti bii kenn du ko lekkee noonu suñu pasti bii kenn du ko logee noonu suñu pasti bii kenn du ko lekkee noonu suñu pasti bii kenn du ko maccee noonu suñu pasti bii kenn du ko maccee noonu suñu pasti bii kenn du ko lekkee noonu suñu pasti bii ñu ne ko warax yàbbi dañ doon dof dof lu tentative de liquidation aux fins d'élimination d'un adversaire politique ñu mbéj seen maam ba seen lex yi tourné ñu ne ko warax yàbbi trouble à l'ordre public yóbbu leen trouble à l'ordre public gars yi jël pasti bi raxas ba mu set ne kaay ñibbi ci <laughs> laaj suñu pasti pasti baa ngi dox soxlaam de pasti baa ngi si réew mi di dox soxlaam de du toj réew mi kenn du ko laal du réew mi naan Gàmbi maa ngoog ñu ne ko oh, rombal rombal nitu fitna nga <laughs> mu jóge Dakar ne Gàmbi maa ngoog ñu ne ko rombal rombal ku ñi la fi saxoon démb seen lax yëpp a toj seen lax yëpp a toj ay ngaam yu toj laa fi gis rombal Ousmane romb dugg Casamance te loolu dañ ko jëli man leen jëli jëli parce que bii log dee la seex dee macc dee warax faatu fa yàllaahu ñu ne ko fa ñukk na yàq bu naqari kenn du laal kenn du jege moom kay moo leen di provoqué day ñëw ba seen gémmiñ yi taxaw naan naa ngi nii naa ngi nii ñu naan ko waa rombal rombal rombal day ñëw ba ci gémmiñu Macky Sall bi ko maa ngi nii macal macal macal xool macal xool <laughs> macal xool Macky Sall non non garaawul non garaawul ma sax xiifu ma non xiifu ma non non garaaw ma macal mac ma rek macal xool macal ma non xiifu bi taxaw fa naan ko macal xool macal xool macal du du daawaati jég mbéj nañ fi say ngam ba ba mu dem fii ba mu doon benn ŋaam mbéj ŋaam bi ba ŋaam bi fekk si ŋaam bi macal xool macal non non grand téefuma sax léegi laa macc <laughs> macal non solo non mac non magi doo macc non non garaawul non parce que bu mu ko fi jéemee daf dañoo mbéj maamam ba mu ba mu ba mu ba mu mu gëlëm nga ko macc ñëwal seet nga waaye ne macal boo xampee yaa ma tooñ tëll macal dof dof dofoo ko sax yow Macky Sall émeute yi fi amoon libéré Sonko a jamais a jamais deux cent trois waa jëleen ko wax de borom jaal ba nee na leen y jamais deux cent trois ay ca ñëwal <laughs> laal dee jege dee jublu dee loolu leer na ku repp rek a koy laal ku repp rek a koy laal ku bëgg a taal dëkk bi ñëw lan moo ko ci génne bii passé ay sëriñ sëriñ yi dañoo génn di ñaan ay waay ngir yàlla bàyyi leen kii ay waay sarax ngir yàlla ay waay toog leen waay ay waay kaay leen ñu waxtaan sëriñ yi ñoo mujj ñoo fi génn de di ñaan ay leen ñu waay ay waay bu leen taal dëkk bi waay ay waay kaay leen waay ñu waxtaan ay waay ay waay magi toog ne tekk <laughs> mbéj moomu du ko mus a fàtte mu dugg ci rondalu ndeyam kenn gisatul Macky Sall ana Macky ana Macky ñu naan dee na ñu naan ñu ngi ci suuf rondal bi ñu naan est-ce jaaru ci géej gi ñu naan est-ce que duggul fii ñu naan est-ce que naawul kenn kenn Macky Sall ne selaw <laughs> mbéj booboo bon mooy tul ma mbéju askan parce que seen loxo yi lañuy dajale naan ay ca ñëw leen ñëw leen gars yi naan nii di forate loxo yi ñëw leen ñëw leen gars yi di forote naan nii <laughs> ilaha illallah te ngi ne ah, ah Fatou sottil ma fii sottil ma fii tuuti kii lu mu tëddati euh, Euh, karité nga ne nii nag ndeysaan sa jabar ji ñëw jox la karité nga ne nii diw ba mu tàng karité ba mu tàng nga ne ko nii <laughs> wala nga diw ci muus mi ba mu tàng ay ñëw leen ñëw leen loxo yi di dajaloo ñëw leen ñëw leen ñëw leen ba loxo yi mat ay ton tal lañ def Macky Sall xoolal mu seey rondalu ndeyam la newoon ndakate gars yi di wër Macky Sall jabar ji di ko wër doom yi na papa papa papa téew téew mu dugg ci suufu rondalu ndeyam papa mais papa il est où maram naan waay yow sama chéri bi ma fu ne ay waay Macky waay ay suufu rondalam nekk di lox di lox loxee bu mu bëggee lok pasi dañoo mbéj maamam ba mu gëlëm kaay lok kaay lokaat ko pasi baa ngi fi de kaay lok xool boo logee xam yow da doxoo moom da nga rep wala nga bëgg a xaru kaay loog ma ni kaay ja Sonko ngi ni kaay laal wax ji bariwul toog leen toog na laal mbéj nañ fi ndayam ba mu xëm dugg rondalu ndayam quatre jour cinq jours kenn gisu ko kenn déggu ko ay ca bii paa waxoo sa sa rondalu nday la ñuy damm màbbal ko sa kaw yow dofoo sax Macky Sall yow da ngay dof dof yow dofoo billaahi dofoo dofoo say juróom-ñaari maam amuñu fit say juróom-ñaari maam tojuñu fenn yow ñëwal tu verras que du feu ngay kannasu kannasu ñoo la gën a population kenn atton kenn attanu ko force reste à la population ñëwal essayé ko yow yow dafoo <laughs> moo tax Sonko provoqué muy daw di daw rek di daw tu veux mettre le feu le pays en feu et en flamme dans un chaos indescriptible ñëwal tension sur tension ñëwal bu ngeen am lu ngeen ragal affaire bi pour mu am révolte boobu il faut ñu laal Sonko na laal Sonko leen daal pare leen alerte maximale taxaw leen cocktail molotov briquet almet pneu essence lépp xeeru raay yi brique dammitu brique deewu kaña waaw sëf ba mu sedd guy ni ñëpp taxaw briquet almet pneu lépp la la yor cocktail molotov xeeru raay brique dammiti brique tout ñu deewu kaño ko wax ji jeex tàkk sëriñ dootu fi wooteeti parce que balaa woote fekk ñu ñu dee kaña la ñu deewu kaña sëf lay brique ba nga ne kañ sëriñ bi ne kaa leen négocier ñu ne ko wax koy négocier kii dee na di <laughs> ray nañ ko de ah wuy sama ndey rey ngeen ko ah, ah sëñ bi ah, bee passé yaay négocier mee bii muy dof dof lu ñu ray ko mu jeex wax ji jeex na sëf nañ koy brique ba mu gaa yaa ngi pale di di di piscine party de pale ngi toj laa la wax di jëng fa di scratch gaa yaa ngi piscine party laa la wax gaa yaa ngi ca piscine pale ba di rajaxe laa la bombaas soirée bombaas ku ma fa dëgg na ma masta man ma ñëw préparer sama sax <laughs> jour ko dee kaña ba sëf ko brique ba mu sedd guy ñu bombaas bi dama ko bëgg a fekk soirée bombaas boobu moom bëgg naa ko fekk waaw piscine party bombaas biir pale ay <laughs> waaye ku ma fa dëgg na ma masta eey sama gars yi bu leen ma xañ loolu waaye bu jàmm jooju waaye gëj naa piscine party gëj naa bombaas bu leen ma ko xañ waaw dem na dem laal rek na dem laal bu laalee ñu soirée bombaas piscine party digg pale eey <laughs> waaye man bu ma njaaxee nag ba tëdd ci lal bi lalu Macky Sall bi ba ne nii nag oh. yàlla fii kon Macky fii la doon fanaan ñu ne ma ndeysaan fii la doon fanaan ma ne yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana waaye man lal bi nooy ah, fii la doon fanaan fii la ay waay di fudd fudd sama yax yi nag karaj karaj ma nag mm, oh, oh. hey waaye man ndakate waa ji nooy bi moo taxoon bugg fee jóge <laughs> ne gaa yi gaa yi barbecue ma man paral leen ma ñaari kii rek ñaari doo yàpp man garaawul man du ma lekk yàpp lu bëri man rastaman la vibration voilà salasiaay de fës laa gëm jox leen ma foofu ñaari ñaari dogo ya ndawal rek ñaari dogo ndawal jeex na tàkk tëdd ca lal fekk gars yi di bari ba kii piscine pas di fee bombas affaire ba takar naa se digg pale ca piscine ba <laughs> ku mu fa dégg na ma masta da ngeen di day dof dof rek ay ca na dem laali na dem laali kii day day kanasu kanasu kii di tàppat nañ jàll ci leneen dama ne ñaari yii c'est des facteurs yoo xam ne mooy taal dëkk bi mooy jéem a tenter troisième candidature mu jéem a laal Ousmane Sonko ñu won ko ni loo bax ñu ñaar ko ñoo la gën a tàng junni yoon ak juróom-ñaar ñoo la gën a féroce li la fi fekkoon du la fi fekkaat dañ lay rey duñ la bàyyi ngay nëbbatoo ko làqutu fa nga nekk lañ lay deewu kañe brique la ba nga sëfu ba nga seddu kuy ñu diri la ci mbedd mi parce que mer bu ñu la meree laa la wax ci sa corps bi ci mbedd mi lay mujjee comme gars yi nu ñu def xaddafi lañ lay def diri la ñi naan tànk baa ngi nii ñi naan sull baa ngi nii ñi naan coq yaa ngi nii ñi naan ta kàpptaat yaa ngi nii loolu lañ lay nar a def demal nga nekk nit voilà comme da ngaa rep repp dee bisimilah ñun ñu ngi lay xaar gars yi alerte maximale taxaw leen pare leen alerte maximale alpha bêta alerte maximal briquet almet pneu essence briquet almet pneu essence alerte maximal xeeru raay xeeru raay alerte maximale cocktail molotov cocktail molotov population écoute alerte maximale cocktail molotov briquet almet pneu essence briquet almet pneu essence cocktail molotov xeeru raay xeeru raay quatre poches quatre xeer quatre poches quatre xeer piis kon loolu rek lañ loolu mooy alerte bi population bi yëpp dégg nañ code bi jeex na